turam ak santam yéen waa quartier Fass. Euh, tey man maa def option pour yéen la jeunesse de Fass ñu toog waxtaan ak ak président Cheikh Mbacké option boobu man maa ko def pour des raisons parce que dama bëgg ngeen jàkkaarloo face à face ak seen leader ak man mi nga xamante ni maa ko choisir xam naa dinaa ci ñëw après. Euh, di nuyu délégation bi ànd ak président Cheikh Mbacké Ndiaye délégation bi di si nuyu monsieur Ka di nuyu Ndey Daba di jël nuyoo bi di ko teg sa délégation bi yëpp président bala may romb Ndey Daba dama bëggoon tey fii ci biir quartier Fass ñu démarrer fi benn slogan boo xamante ni dañu bëgg a démarrer moom fii ba élection législative élection présidentielle ak yeneen i bés muy lan Ndeye Daba gis naa la ràññee naa la gis naa fi nga teg Cheikh Mbacké ma bëggoon les amazones de Cheikh Mbacké Ndiaye ñu dooree ko fii ci quartier fas te dégg naa la ñii Baye Fallou de loolu président dama bëgg ñu acté ko fii tey te ñu dox si quartier bu ñu dem nañ fa créer les amazones di président Cheikh Mbacké Ndiaye c'est important euh, beneen bi mooy nuyu maître Lay Lamine Lay di collaborateur direct bu président Cheikh Mbacke Ndiaye nekk ki nga xamante ni dafa nekk ci wetu Cheikh Mbacke lépp luy conseil lépp li nga xamante ni mooy tox mooy tax liggéey bi ñuy ñoñal mu mën a àgg fa mu àgg di ko remercier bu baax si discrétion ak vraiment si accompagnement bi mu ànd ak maître ak président Cheikh Mbacke Ndiaye. beneen bi may nuyu seen goro bi di Ibrahima Diop ñu naan ko Bintu Mbaye parce que dinaa ci wax mais du du ma ci yàgg parce que am na fu ma fekkoon mooy euh, Ibrahima Diop Bintu am na fu ma fekkoon am na ci démarche bu ma nekkoon di nuyu waa mouvement en marche pour l'émergence de Kër Massar jàppal ma jàpp Ibrahima Diop Picchu fekkoon na ma ci liggéey bu ma nekkoon mu ne ma Dramé bàyyi ci li nga nekk am na luy ñëw bu ñëwee ñu dox si loolu. te ki ma booleel réccuwuma ko ndax maak moom toog nañu waxtaan nañ te ki la wax ni la kaay jàppale ma ak kila wax kaay ñu ànd du benn. ki la wax kaay ñu ànd day fekk ne lépp loo yor yow lépp képp koo àndal dina la mën a boot ànd ak moom donc loolu moo tax ma ànd ak président Cheikh di nuyu ñi nga xamante ni mooy les investis dama jël quartier fas boole ko ci priorité président Cheikh Mbacké Ndiaye jël des jeunes engagés ñu nekk ci diversité yu différentes boole leen ci liggéeyu président Cheikh Mbacké ku demee ni Adama Dramé yéen ñëpp xam ngeen ko moo nekk surveillant au niveau de l'école El Hadj Thierno Dramé nekk la zone 12 et de la zone 13 bu des navétanes de Kër Massar ma jël ku ñu naan Diack Amady Diack nekk ingénieur à l'université di def la radiologie mu nekk su les investis de de la liste di président Cheikh Mbacké Ndiaye Bintou nekk koo xamante ni yàgg na ak yéen ma jël ko dugal ko ci liste bi ndax xam ngeen taxawaayam ñu jël Baye Lamine en tant que étudiant représenté lu am solo fii ci quartier bi et au niveau de la jeunesse de Kër Massar ñu boole ko ci liste bi. ñu jël ku ñu wax El Hadji Diallo yéen ñëpp xam ngeen ko dëkk fii ak yéen nekk si ASC bi di si daj yu ñu si daj ñu jël ko investir ko sur les listes donc président du ma guddal mais lu ma la mën a wax rek mooy que ni quartier Fass gi nii man maa bëggoon démarrer sobrement pour que nga mën a xam avec la jeunesse. si lan la ñuy liggéey ñoom it ñu mën a xam yow ban démarche nga am ban vision nga am vraiment maa ngi remercier bu ma limee damay juum di nuyu sama yaay yii fi nekk gis naa seen taxawaay président mi ngi nii nag tey bés la boo xamante ne nii waxtaan la entre yéen ak moom question bu ngeen am tey mën ngeen ko ko posé bala muy dem question yi dinañ ko bind réponse yi dinañ ko bind te fépp fu ñu dem aussi noonu la ñuy def du ma guddal man ak yéen dinañ gën a toog ñu waxtaan quartier bii suñu quartier la mooy li may wax toujours ku nekk di nga fi andi sa leader mais ku fi andi sa leader dalal leen ko wax leen ko seen xalaat mais nag ngeen xam ni benn liste moo fi am pour le département mooy liste bi ñaan union citoyenne bunt bi di bu bule bii ngeen di seen grand puissance bi mooy bii ngeen di seen nii fu ngeen ko gis jour bu ñu war a voté bii ngeen di jël bu leen jël beneen bu leen xool beneen kii moo ñu doy président Cheikh Mbacke Ndiaye man doyloo naa ko doyloo na ma am na fu ma teg te bég naa si waa Fass maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm aw ma seen fay maa ngi leen di jox rendez le 23 juin ngeen am seen conseil départemental. di ñëw aussi ci ñi nga xam ne ñoo waral bés bi bés bi nag bu ñu fi teewee dafa am ay jëmm yu tax. jëmm yooyu dama ciy jiital kii di docteur euh, Makhtar Dramé docteur Piccu Mbay moo ñu boole Ibrahima Diop te dama koy réitéré li mu li mu wax sànq dama ko koy dama ko koy wax euh, ñi ma mës a booleel ñépp li ma gis ci moom ci sérieux li ma gis ci moom ci taxawaay musuma ko gis ci képp ku ma Pithio Mbaye mos a booleel te loolu mooy dëgg lu ma gëm la da nga gore rek mais nag nit moom bu la lebaree ker da koy fay guddi danaa ñëw de bu sooba yàlla parce que ci ci liñ jëm ndam rek la lu ñu gëm la nekkuñu ci aventure nekkuñu ci dara dañoo gëm ne changement day am te day am incha allah parce que ñu ngi ci yoon bi nekk ci dëgg aussi di wax ak population bi dëgg parce que dëgg rek mooy dëgg te nag fa ñu jëm ragaluñ ko te dañ fay yegg bu soobu yàlla. li am solo nag mooy dafa am ñu ñu fi fekk muy ñaari muy ñaari catégorie muy ndaw ñi. jigéen ñi ci ndaw ñi laay terminer parce que man ak yéen ñoo bokk génération damay ñëw ci li nga xam ne mooy suma yaay yi ma fi fekk am na sumay maam yu ma fi fekk am na sumay bàjjet yu ma fi fekk am na suma yaay yu ma fekk suma xol nag tooy na trop parce que gis nga fii tey ku fi taxaw ku ne say mbokk programme danañ am ay jataay jataay pour di ko mën di ko expliquer parce que euh, jigéen boo ko bëggee dimbali du ci ay loo xam ne nii da koy jox xaalis ñu koy lebalante ci seen biir da ngay créer conditions yi leen mën a permettre bu ëllëgee danañ am ay revenu yoo xam ne nii ku leen dimbali ñu dimbali seen bopp ku leen dimbaliwul ñu dimbali seen bopp loolu nag la ca njëkk te loolu ñoom ak ndaw ñi ñoo ci yem mooy il faut ñu former leen ñu former leen parce que dafa laaj nit ki bala muy bala bala nga koy jox bala nga koy financer mu am une formation boo xam ne nii la nga koy jox day xam nu mu koy defee ba mu mën a ba bu nekkee dix dina mën a dem ba cent kon tey euh, am nañu des partenaires yoo xam ne tey jii dañuy def ay projet projet yooyu du doon ay projet yoo xam ne nii kat ay ay un million la wala deux millions yooyu parce que aussi loo gis étape la te chaque année am na noo war a mën a doxalee noo xam ne di nga di nga di nga di nga jël ay association wala GIE de femmes yoo xam ne nii di nga leen mën a accompagner bu dee sax seen seen seen seen financement la ñuy soxla pour jënd ay machine la ñuy soxla pour pour mën a liggéey mu doon à sax lu mu doon doon lu mu tuuti tuuti nekk ay ay ay cinq millions wala dix millions loo xam ne dinañ ci mën a liggéey di ci mën a aussi produire euh, la nga xam ne ni moom moom mooy leen di jural après ëllëg euh, euh, ay revenu yu leen mën a permettre ñu mën a autonome loolu nag day baax ñu am ay projets yoo xam ne yu leer la ñun aussi ñu mën leen cee accompagner parce que li ñuy wax du waxi politique li ñuy wax parce que lu ñu lu ñu lu ñu am la téye ko ci suñu loxo war ci ànd ak yéen encadre leen parce que duñ leen duñ leen utal financement ba pare bàyyi leen noonu parce que tamit day am ay réunion périodique yoo xam ne nii femmes yi lañ koy jagleel pour mën a toog ak ñoom xam ñoom fan nañu toll xam aussi lan lañ dox nan nañ ko doxalee loolu nag day fekk ca liggéey ba nga nekk wala ca ka nga xam ne nii moom moo mooy def suivi bi mën a am sérieux boo xam ne nii bu ëllëgee euh, ku ci ku ci nar a juum wala ku ci ku ciy dem ba benn moment Euh, mënatoo avancé ñu mën la encadrer ba nga génn ci ci ci pax moomu nga nekk euh, ci wàllu ndaw yi buñ nee ndaw dafa laaj aussi formation buñ ne ndaw dafa laaj ñu encadrer ko buñ ne ndaw aussi dafa laaj ñu teg ko ci yoon boo xam ne nii bu ëllëgee moom aussi dina dina xam ne kat am na yoon bu ñu ko mën a jàppalee wala bu jàqee dina am fu mu mën a dem pour mën a am ay revenu yu ko mën a permettre mu mën a demal boppam ci wàll woowu ñun comme département bu bees la dafa am loo xam ne nii dañ ko dañ ko nar a créer muy muy ci wàllu par exemple centre commerciale centre commerciale boobu liñ ci bëgg mooy ay ndaw yi Kër Massar mën ci nekk du doon nag centre commercial boo xam ne nii bu bu bu ndaw la parce que tamit ci wàllu woowu ñun liñ ci xalaat mooy au lieu ñuy dem ba ay Sandaga di fa di fa jënd bu ñu soxlaa jënd dara ñu dem ba Sandaga wala dara waa dakaar ñoom ñooy ñëw ba fii war jënd jënd fii dal di dem ville ñibbi loolu nag du ay ay ay politique politicienne wala dara lu possible la lu ñu mën a lu ñu mën a teg fii la ba pare ay doomi Kër Massar mën ci liggéey parce que loolu ñun ci loolu lañu lañu lañu lañu lañu wax ak ak partenaire bi leneen li ci des mooy ci ci ci wàllu formation am nañu yéene def fi benn lycée scientifique euh, loolu li li tax ñu bëgg ko def xam nga lu ci bari ñu ci bari dañuy jóge ci ci banlieue bi di dem ba dakaar pour pour uti ji xam-xam walla pour ñu former leen alors que loolu lépp mën na am fi leneen li ci des daa am suñu benn xarit boo xam ne euh, dafa dafa nekk en Europe dafa nekk en Espagne euh, bi mu fi ñëwee temps yële passé ñuy waxtaan ñuy waxtaan di waxtaan di waxtaan ba benn moment mu ne ma Cheikh man mën naa leen jàppale ci formation boo xam ne nii mën na dem chaque année mille cinq cent euh, loolu nag liñ ci jublu mooy chaque année ñu former ay ndaw yoo xam ne danañ mën a dem def soit trois mois wala six mois tout dépendra ci la nga xam ne nii kat euh, formation boobu lay subir bu demee ba nga xam ne nii formé nañ ko buy ñëw ci mille cinq cent yooyu dinañ ci ut sax cent personnes yoo xam ne nii danañ leen mën a accompagner ak financement boo xam ne bu ëllëgee danañ xam ne kat lañu ñu woon am na lu mu jur leneen li ci des euh, ci wàllu complexe dañu bëgg am euh, def fi complexe sportif mais aussi benn complexe boo xam ne culturel la complexe sportif lañ ci jublu xam nga lan la euh, tey jii ñu ci bari bu ñuy bu amee bu ñu amee match ASC ASC ñoom xam nañ li may wax dañuy dem mbaaw wala ñu dem Pikine nag yooyu e war nañu ñun am fi benn stade boo xam ne benn stade départemental boo xam ne boo xam ne state bi bu boobaa du ñu wàlliyaan fenn fii la ki bu ñu amee suñ match fii lañ koy joué leneen li ci des aussi dana lañ ca bëgg ci biir kii mooy ci wàllu même même même même basket même kii mini foot loolu yëpp ñu ñu def ko ci complexe boobu ba bu ëllëgee danañ mën a produir ay sportifs yoo xam ne nii danañ leen mën a dégg partout ci adduna bi euh, leneen li ci des bu ma nekk complexe culturel xam nga am na ay artistes sànq tout à l'heure suñu artistes yi fii euh, africanité euh, dañu wax dañu wax lu am solo te fii y a de jeunes talents yoo xam ne bu ñu leen encadré wul jàppale leen euh, day metti mais complexe boobu noonu dinañ ci dinañ ci def benn studio boo xam ne nii tey ñi amat ñi ñi bëgg ñi bëgg produir produire te amuñu moyen ak yooyu yëpp dinañ fa mën a dem luñ fa luñ fa luñ fa am comme kii luñ fa am comme comme tube ñu mën ko fa enregistrer après ñu mën leen a jàppale encadrer leen mais loolu nag euh, parfois booy wax dañ naan bëgg rek di wax mais lu ñuy wax nii lu ñu lu ñu tënk la ba pare lu ñu téye ci ñun am ko négocier ko parce que tamit euh, yàlla dafa dogal ñun ci li nga xam ne ci la ñuy yëngu dañ ci am ay relation yu bari te lépp luñ ciy doxal aussi dañ ciy doxalaale loo xam ne nii bu ëllëgee danañu mën a permettre ñu mën a ñu mën a jariñ aussi fa ñu dëkk ñu mën a jariñ aussi suñu réew parce que lu mel nii aussi lañ doon xaar moo tax lépp luñ leen wax lu ñu lu ñu téye la ba pare te bis bu ñu yàlla dimbalee ñu am ndam dans les mois qui suivent bu boobaa lu ñuy mën a lu ñuy mën a réaliser la incha allah euh, li tax nag tey suma ñëw bii ma am ci contentement c'est parce que booy ñëw di seet say mbokk ñu accueillir nu mel nii sa xol du def lu dul sedd ku ko wax ak ku ko waxul dañu sonn il faut un vrai leader bu am aussi capacité yoo xam ne nii dana mën a permettre bu ëllëgee xel mi dana mën a xalaat population bi parce que nag tant que ñu ngi xalaat suñu bopp rek du ñu mën a dem fenn kon tey nañu gëm ne changement mën na am changement nag ci lan la day fekk yow sa wàllu bopp nga am équipe bu la ci mën a accompagner te macha allah wax dëgg yàlla ñi ma àndal ñii doy nañ ma sëkk waaye nag lu ci dolleeku aussi ci loo xam ne nii lu baax la damay jël tëjuñu suñ buntu parce que nag ñëpp compétence yëpp lañ soxla tëjuñu suñ buntu parce que ci li ñu jëm cinq la tëjuñu suñ buntu parce que au jour le jour am na loo war a xalaatal population bi am na loo leen war a réaliser ba bu ëllëgee ñu xam ne kat yow fañ la tegoon donte defoo cent pour cent mais quatre-vingt-dix pour cent yi matal nga ko mais nag lépp lu ñuy mënti def lu ñuy waxtaanee ak yéen la ba ngeen comprendre fi ñu jëm fan la pour bu ko defee ngeen mën ñu cee accompagner parce que nag département bu bees moom dafa laaj nga nga nga nga nga tabaxee ko fondation bu dëgër ba bu ëllëgee ku ñëw bu bu bëggee def naka sudul noonu sax du ko mën yàlla nañ yàlla defal sutura defal ñu jàmm ak salaam maa ngi jéggalu kàddu yi